xam naa lekk bi nekk fee moo tax nga xaw a kontaan noonu. waaw bay ëpp fi mu toll nii. nga ne lu ñuy def ak sa soxna loo bëgg ñu jàngal ko. waaw damaa gis plat yi jekk service lool. ma xam ne lii ku am bu baax bu mokk. ma ko defal surtout nekk aaw nag. ak ñaareel ak ñetteel man. aaw aaw rek kay mën lii nag. na man ak ñetteel de la. non bu nekkee aaw bi mën naa koo jàngal lii aaw rek ku koy mën. sama ñetteel bi nag xaw ma mën na yi. non non non ñetteel ñetteel mënul lii xam naa ko déggee dañ ma mere de waaye. ah ñeneen ñi dañ la mere ñetteel bi nag waaw moom moo ko na moo yi pala yi xamu ko mën na ko bu ko defee day raté ah mosul mais aw bi moom boo ko indee ñu initié ko ci lële waaw moom it neex na xel ci jàng moom boo ah, ko jàngalee moo tax ma ne la boo ñëwee man moom maa koy jàngal spécialement waaw dee ñeneen ñi nag moom ah xanaa nga seet keneen mooy sa nawle ah. <laughs> mooy sa nawle aw bi mooy sama nawle <laughs> alors Birahim Ndiaye bonjour Adama Kandé bonjour tu as vu hein, on a démarré avec euh, mm -hmm. Euh, quelques notes moom ci wàllu cuisine bi daal mais nag loolu nag moom am na solo loolu ndax biir euh, saako bu feetu waaw du taxaw du taxaw waaw dëgg ancien lutteur euh, tey nag da fi teew démb gis nañ la ci làmb ji nga joxe sa analyse ci combat yi nga xamante ne jot na fa am waaye combat bi ñëpp doon xaar mu nekk entre Gris Bordeaux mhm. ak Modou Lo Adama Modou Lo ci loolu la ñuy dellu si waat ak Birahim Ndiaye consultant de geste xam aussi lamb puisque nekkoon na fi mbër te ji mu jiite école de lutte euh, alors euh, Birame d'abord dañ koy gërëm aussi si disponibilité am puisque mhm. c'était pas évident démb mu ngi yoon ak ñun euh, mhm. stade tey ji ñu invité ko rapidement mhm. mu ñëw nangoo ñëw donc and ak ñun justement ci combat boobu la ñuy dellu si diggante Gris Bordeaux ak modulo Lo seetaan at quelques temps forts les derniers instants du combat ñu dellu si waaw Modou Lo Gris Bordeaux maa ngi lay yëgal leen Alaaji Papa ñaari yoon Modou Lo moo song waaw ñaari yoon Modou moo song Gris yëkkati na Modou Lo Modou Lo bañ xam nga bëtt bi bégaay mësuma bëtt bi façon bi du baax fekk ba baa ngi génn ci kaw boppam fenn mu ngi génn ci kaw bu bëttee du baax moom Gris Bordeaux waaw day fexe dugal bu téye ñaar loxoom ci biir day fexe dugal boppam ci biir bu bëttee rek su dee mu jàpp waaye fépp arbitre bi arrêté na combat bi yaakaar naa def nañu ñaari 10 minutes de def nañu ñaari 10 minutes dañ leen di bàyyi ñoom ñaar dañuy def dañuy defaat euh, prolongation est-ce que ah, est-ce que mën nañu désigner que mën nañ fi désigner vainqueur Modou Lo par avertissement. c'est sûr c'est sûr. par avertissement Modou Lo gagné na. c'est sûr Bordeaux dafa waroon a jël responsabilité jëlul benn initiative. c'est sûr. waaw jëlul benn initiative. indil ma Modou Lo. sinon indil ma Modou Lo. Gris Bordeaux bu ko neexee muy indil ma Gris Bordeaux. c'est du dama ci kanam dinañ déglu Modou mais eh, Birahim dañuy rek euh, bàyyi dañ lay bàyyi nga jàngat euh, combat bi euh, nga wax ñu yow ban jàngat nga ci am gannaaw bi nga seetaanewaate image yi. waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu waa waa 2STV ñëpp li commencé directeur beeg ñëpp di nuyu fii sama. doom ju baax ji maa ngi nuyu ñëpp daal gannaaw li ne pare ba démb bi euh, combat ñu doon si mu neex lool parce que Gris doon booloo ci Gris mag tudde ko Trente Tigres euh, Modou tamit def ay preuve ci làmb ji xale boo xar yi mu ngi ci fax bu nekk fi mu ne ana bon mais niñ doon combat bi bu fekkee dëgg rek a tax ñu tax di wax te yàlla rek tax li ñu gis woon ci bëre bi gisuñu ci lu bari gisuñu ko ci parce que ñëpp yaakaaroon nañ ci xeex yaakaaroon nañ ci bëri bëri dina feeñ xeex dina feeñ mais loolu lépp dara daanaka lu ci bari fee xeex bi ñëwul euh, giri fa ñu ko gisoon fa ñu ko yaakaaroon ne tey jii moom day ñëw prouver jaar jàll dem yoonam bëri fa bëri bu léegi boo xam ne bii tey jii même ñu ko dee daan dina wane. Hmm. tey ji loo xam ne dañ ne tey lii laa andi. parce que défaite moom mën na mën ngaa ñëw forme sax daanu. Mhm. waaye mën ngaa def ñàkk forme waaye tey démb euh, gisuñu mu wane lu war a tey na tey lii day gagné. Mhm. du ci xeex bi du ci bëri bi gisuma ko démb bien que Modou loo moom it euh, def na li mu war mhm. ba jëli na ay song na ay songi erreur yoo xam ne ay jëli yoo xam ne yi dégg nga ci biir bëri bi yëpp sax teguwul ci yoon. am na ñoo xam ne ñu ay ndaanaan yoo xam ne bu ci daje woon ak ñooñu gis naa yooru bu mu yooru boo xam ne bi dafa sëgal bopp bi ci suuf parce que booy song nit ki da toog ci tànk si gi xool waa loxo bu jógee nga mën a fente coup bi mën koo dóor jël ko waaye dafa ruur bopp bi rek loolu loxo yi dem rien que rek mooy naan dem jàppi ko rek bëre bi jeex amoon na aussi ñaari prise mais mais mënul dem waaw ñaari prise yi mu dem moo mënul parce que kii téye na ko ci biir mm-hmm. waaw giri ñaari loxoom dafa nekk ci biir mm-hmm. mu téye waaye Modou Lo fi mu téye waa ji mënu ko bëtt ah. parce que booy bët nit ki day fekk sa bopp nekk ci biir waaye bu fekkee da ngaa téye ko pare say tànk lang nii say tànk tolloo taxaw nii mm-hmm. doo dem parce que dangay jiital tànk bi nga xam ne moom nga mën a bëre mooy nekk ci kanam su ko defee léegi benn loxo bi ngay téye benn bi libre benn bi nga téye mooy boobu moom ngay xëccee mu ñëw wala nga dugg mu génn wala nga euh, moom ngay dóor pour ubbi bunt bi mhm. mais fekkee da ngaa ñaata ëñ waa ji sa bopp nekk ci bi ba suba doo dem mhm. moo di def na foofu bëri bu rëy mooy ci rasu bi am na bu mu jaar ci franc bi daw rek ko mu rasu génn moo tax toujours damay wax ci bëre mhm. ñaara ngi ci yoo xam ne ku ko mënul rek bi du ma ne mën ngaa bëre man sama xam-xam bu gàtt mooy riñaan ak rasu mbër day mën a jëli feeg mënoo song song mu aw yoon sa bëri des na soo mënta rasu it sa bëri des na. Mhm. parce que am na fu ko giri bëtte. Mhm. bu mën woon a rasu day dem. day dem waaw. est ce que euh, ba nga mhm. tey d' accord ak ñi nga xamante ne. dañuy wax ni maanaam dañuy dem bay sexal nit ki rek. daal di rocc kii maanaam baa ngi fi daal nit ñi ne fekk di xaar. waaw lu war a am rek. daal di dindi loolu. waaw loolu day am ci combat combat léeg-léeg ngeen yaakaar ne kombaa bii. du neexee noonu sax mu dem bett ñëpp neex ci neex goo xam ne da ngeen di waaru sax waaw parce que dañuy favoriser kenn ka ba des efforts des kenn ki kenn ki la ñuy jox favor ba yaakaar ne bu ñëwee day massacrer kenn ki rek dem mhm. kenn ka ñëw dëgg yaakaar nañ koy massacrer mu ñëw def feuille flamme boo xam ne bi combat bi day neex ba du leen di wat sax loolu day am waaye léeg tamit combat ñu tëgg ko tëgg koo xam ne ñëpp defe ne combat bi euh, tey defe ne ne mooy mooy meilleur combat ci l'année bi mu ñëw bett ñëpp mais see seetal Gris Bordeaux keroog bi muy bëri ak ak Amar Sène mais keroog combat bi ni mel kenn foog koon mais keroog loo soxla ci bëri gis nga gis songoo am na bëri am na xeex am na Gris daanu na ca sax waaye am na ca ndam mm. ndam li mu ci am mooy keroog ñëpp xam nañ ne Gris joxe na boppam ba mu jeex tàkk loolu nag la ñu gisul ci moom démb. lu tax loolu nag est-ce que ay consigne la wala parce que dañ ko atteindre mystiquement. waaw mystiquement moom du ci sori parce que mystiquement ki ñu jàpp yow yaa koy yëgal sa bopp yaay xam ndax jàpp nañ ma wala jàpp ma wala loolu yaa sa xel mooy defal sa bopp la hmm. loolu moom analyser ci yombul parce que nit loo xam-xam moo la gën a xam boppam hmm. yaa ngi nekk moom moo xam boppam mais euh, bu ñu ko conseillé sa tey ne ko defal nii sax te mu ñëw xool xam ne loolu arrangé wu ko war naa mën a indi leneen loo xam luy daal di parce que waroon naa xam ne tey jii daan Modou Lo jéego mag la doon ci moom. parce que dafa bokk coup des grands ci ñi fi xëccoo roi des arènes daf cee war a bokk. Mm-hmm. kon bu demee dema dema dem ba tey ñu tenir ko ci combat bi tenir ko ci bëri bi tenir ko ci xeex bi ah wala foofu maadama su ma loolu moom naa seetaat sama bopp. Mm-hmm. seetaat entraînement yi xool parce que. toujours damay wax ci bëri nañ ci bàyyi xel ki lay jàngal day fekk mu raw la. Mhm. ki lay jàngal day fekk mu xam loo xamul wala mu mën loo mënul. waaye ki lay jàngal bu fekkee ne jàngalu la adversaire bi. Mhm. dégg nga toujours da euh, da ngay parce que ñun boo gisee tubaab yi xaw ñu raw lool ci sport pour ñu dab leen dina jafe. mooy ñun toujours équipe da koy jàng. Mhm. adversaire da nga koy jàng ba xam fooram ak feebalam. kii lii la mën lii la tële fi mu mënee du ma fa jaar mukk ci mais ñu bëri mystiquement rek la ñuy la ñuy xool. waaw mystiquement bi ah, gis nga bi fekk ma euh, firi. Mhm. fekk yaa ngi jël mystiquement di ko teg ci sa kanam say dafa doo ko xam. Hmm. waaw mais tey jii bu ma tëboon tey tëb ne tëll pes tey jii dégg nga ñu wax mu ne ma ah tay ko dañ ko liggéey maa ko tey <laughs> maa ko tey dégg li ma parce que gis nga mystique uh-huh. euh, ñun Sénégal dañoo gëm mystique teg ko ci boppam ba xam ne bu dee élève bi dafay jàngi di def examen te wóor na ma jànguli leçon du def ay exercice dégg nga ki ko sut di ko rectifier ne ko nii la lii fii la sujet bi nii la mais dem ñu bëri dañu dafa ne dafa ne boo ñaanee ci big bi rek ñëw big bi day bindal boppam dem <laughs> loolu da ñaan loolu amul fenn dégg nga mystique bu ñu ko tegee ci sa kanam dañuy réer uh-huh. <laughs> ñun dañuy réer xam nga lu ñuy réer mm-hmm. parce que la ñu war a jàng dootuñu ko jàng da ngay teg mystique bi fële mm-hmm. dégg nga li ma la wax quatrième position la ci bëri da ngay mën a bëri mm-hmm. da ngay am condition da ngay ñeme da ngay jàng adversaire dëgg la ñu bëri nag dañ doon wax ni kawoo mooy am. waaw est-ce que ce que loolu prévoir nañ waaw kawoo ci bëri tamit da ciy feeñ rek du sax loo xam ne lii dañ ko ci da ko ci natt mu feeñ ci kaw boo fi gis mu am ci bëri da caa feeñ rek hmm. parce que doomu aadama moo bëri point sensible yoo xam ne lu ñu la fa laal rek nga dem teer. parce que ñoom ñëpp c'est des puncheurs ah c'est des boxeurs. waaw puncheurs lañu mais hmm. li mu dóor mu carrière am li mu dóor mu daanu bëriwul. waaw ñaari combat la ci doon man laaj ci ma sa gis defe naa te loolu ci dañoo songoo roppi ko bi ñu nit bu ngeen songoo jàppante suy génn da bàyyi xel ci génn bi hmm. saa yoo wul génn xel bi génn en garde hmm. waa ji mën na dóor ko hasard fu mu la dal nga dem teer